day bëgg a wax nag ngëneelu julli yi nga xam ne sàmmoonteeg moom dana yokk sa tuyaaba bu mu ci njëkk a wàññi nag moom mooy sopp nañu ku wax asalaamaaleykum bi nga xam ne mooy farata nga dumóoyu ci sa wetuk ndeyjoor ba nga xamee ne ku la féete woon ci gannaaw di séen sa pegg lex am na ñuy teqale ne bu dee kenn kuy julli wala ilimaan day wax asalaamaaley jëm xibla ba mu des kum nag boo ñaar bi ko ci wetuk ndeyjooram bu dee ma moom mooy ka nga xam ne am na ku koy jiite asalaamaaleykum jëpp bu ko dee wax dee dumóoyu jëm ci wetuk ndeyjoor ba nga xamee ne ku ko féete woon ca gannaaw di gis pegg lexam kuy julli ku ne bu jàngee fatiha ba mu jeex daañu sopp mu wax amin amin bokkul ci alquran waaye yonte bi daa waxam ne buñ jàngee faatee ba mu jeex malaaka yi dañuy wax amin te koo xam ne da nga koo wax tolloog malaaka yi di ko wax ñu jéggal la say bàkkaar la ca jiitu woon ak la ca mujj kon nag képp kuy julli rek sopp nañ bu jàngee faatee ba mu jeex mu wax amin ba mu des nag imaan boo xam ne day biral kay jiite woon bu dee biral bu dee ci yoonu Malik duñu sopp mu wax amin loolu nag mën naa am nga dégg borom xam-xam bu mag ni ci waa Màkka yi ilimaan day jiite di wax amin ca kaw ngay dégg waaye loola nag mooy seenu yoon bu dee ci yoonu Malik daal moom ilimaan ji bu dee biral du wax amin kenn képp kuy julli moom bu dee yelu ak bu dee biral ñoo ci yemoo sopp nañ bu jàngee faatee ba mu jeex mu wax amin maa moom itam mooy ki nga xam ne am na ku koy jiite sopp nañu bu ilimaan jàngee faatee ba mu jeex te mu dégg ci noppam mu jàng faatee ba mu jeex mu wax amin dañu bañ ñu ko jéem a tolloole déedéet bu mu ko tolloole bu ko déggee bu wér rek bu dee ci yoonu Malik ba tey dañu sopp ku mën di wax amin mu wax ko ca suuf waaye ñoom taamuñu ku ko wax ca kaw maanaam yow dong boo dee julli moom gannaaw boo waxee sami allahu liman hamidah muy sunna daañu sopp nga wax allahumma rabbana wa lakal hamdu muy ngëneel ba tey itam bu amee kuy jiite ak ku topp ci moom kay jiite mooy wax sami allahu liman hamidah ka ñuy jiite muy maa moom mooy wax allahumma rabbana walaka alhamdu kay jiitu nag moom du wax mukk rabbana walaka alhamdu xunóot bokk na ci ngëneel yi moom ci boppam ngëneel la waaye julli suba rek ko am tayit ci rakkam ñaareel ba gannaaw bu njàng ma jeexee bala ngaaru ko te dañoo sopp ñu yellu ko nun dey ni nuy soloo sax bun dee julli rafet na jekk na waaye nee nañu sopp nañ ci képp kuy julli rek mu wut lu mel ni sarbet wala kaala teg ko ci ay mbaggam te bañ koo muur ci boppam ba noppi di ko laxaar ci baatam ni ko jigéen di defe ndax kon day nuru jigéen sib nañu nag kay jiite ca jàkka ja mu bañ a def làmbaay googu maanaam boo dee sujjóot ak boo dee rukkoo sàbbaal nga ngay sàbbaal bokk na ci nga nee di julli niki ca sujjóot ba subhaana rabbiyal a'la allahumma ighfirli ak boo deeru ko subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi loola ngëneel la bu sujjóotoon waxul dara wala mu rukkoo waxul dara it du ko tee baax sujjóot nag moom taamu nañu fa ñaan lool ndax foofa la jaam bi gën a jege boroomam waaye rukkoo nag amul ñaan moom sàbbaal rek lay am sàbbaal bokkut ak ñaan maanaam wàcce say loxo bañ koo ngëb teg ko ci sa dënn ak lu nuru loolu noonu la ko waa Malick gisee ndaxam daa am ñu defee ne ngëpp say loxo boo dee julli rek moo sax ci sunna fekk na wóor na ne yaar yépp ñoo sax ci sunna yoor loxo yi mu wàcc ak ngëpp loxo yi moo xam ne nga koy def ci dënd ba mbaa feneen kon nag ku nekk ci yoonu Malick nga xam ne moom sib nañ buy julli farata jël ay loxoom teg ko ci fu mel ni ab dënnam def ko daal lu bokkut ak wàcce ko mu wàcc bu dee naafila nag moom bu dee ci yoonu Maalik lañ koy bañ a sib waaye farata moom sib nañ ko ja dañoo bëgg bépp ponk booy tàmbalee def rek nga tàmbalee wax allahu akbar ki boo tàmbalee sëgg di rukkoo ba tàmbalee siggi ba tàmbalee sëgg di sujjóot ba tàmbalee siggi ngay boole jëfu ga ak wax ga allahu akbar loolu lañ taamu soo amee ñaar rakk nag taaya ba taaya ji noppi taamuwuñ nga tàmbalee jóg rek daal di tàmbalee wax allahu akbar déedéet dañoo bëgg nga bàyyi ba taxaw jonn door a wax allahu akbar loolu lañ sopp bokk na ci ngënee li julli boo dee boo dee taaya ñetti baaraam yi nga xam ne mooy baaraamu sangaleeñ ak bi sës ci moom ñu koy wax ndombur ak bi ci sësaat muy baaraamu diggutu ñett ñooñu nga bank leen ñaar ñi des nag muy baaraamu sànnikaay ak baaraamu day nga tàllal leen baaraamu sànnikaay bi nag moom dañoo woote ji da nga koy tàllal mu ne sàtt rek am da nga koy yëngal wax ba gën a wóor ci yoonu Maalik mooy dañoo sopp nga di ko yëngal muy bàyyi ko ndeyjoor jëm càmmooñ doonte sax yow sa taaya jeex na te iliman sëlmala gut da ngay wéy rek di ko yëngal noonee boo dee taaya daal da ngay yëngal baaraamu sànnikaay bi bu sa taaya jeexee te iliman sëlmalu tit nga wéy rek ca yëngal ga bu dee góor dañoo sopp bu sëggee di sujjóot na biiram sori ak luppam concoom sori bëti woomam dañoo bëgg daal bu dee góor moom bu dee sujjóot day jàng ba mu yaatu biir bi bu tegu ci lupp yi mbaa mu di ko jege coñcoli di jege bëti woom ya ba tey sax përëg yi bu sos ci toqtaan yi te xaw a loolu nag wute naag bu dee jigéen bu dee jigéen moom dañoo bëgg ay cëram jege kon mën nga ne dañoo sopp góor muy yàng ay cëram muy yaatu jigéen nag ñu sopp muy lem ay cëram ay cëram di jege. su toogee di taaya wala mu toog diggante ñaari sujjóot ñi am na melo wuñ sopp mu toogee ko mooy day àgg suuf nga xam ne njekkikaayam day dijju nga xam du toog ci benn tànkam te mu génn ñaari tànk ñi ci wetu ndeyjooram te bañ caa toog ci benn su ko defee nag tànku ndeyjoor ba mu yëkkati ko te samp baaraam ya mu jëm suuf toogin woowu ngëneel la ba tey rukkoo moom boo xasee sëgg rek ba say téng jege say bëti woom jëmi farata ji am na waaye nag nga jàpp si téng ci say bëti woom jàpp gu dëgër loolu ngëneel la samp bëti woom yi daa bokk ci ngëneeli julli loolu mooy da ngay dig bëtiwoom yi tànk yi samp dañuy bañ nga mel ne kuy bëgg a sukk na bëtiwoom yi jub ni nga taxawee tànk yi jub bu ilimaan dee yelu ñi ki muy tisbaar mbaa takkusaan mbaa raka bu mujj ci timis mbaa ñaar ñu mujj ci gee daa ñu sopp maamoom muy kañ ñuy jiite maamoom moom itam muy jàng ci suuf ba balaa am xelam di dem ci leneen de sax bu ilimaan dee wax ca kaw di biral moom doonte dégg ko waxal na ni sunna la mu ne pat bañ a wax dara bu dee ci gis-gisu yoonu Maalik bokk na ci ngëneeli julli boo dee sujjóot nga indi say loxo mu jege si ba tolloog say nopp te bañ a sori ci gannaaw bañ a sori ci kanam li kanam ndax mooy tax nga mën a yàgg ci sujjóot ba na nga na nga fa bëgg a yàggee ba tey boo dee wax allahu akbar bi allahu akbar bi njëkk ci julli bi ngëneel la nga yëkkat say loxo ba mu tolloog say mbagg wala mu dox diggante mbagg yeeg nopp yi nga wàccee ko nag ànd ak wax allahu akbar yëkkati loxo googu ngëneel la boo ko bàyyi woon ngëneel rek nga bàyyi bokk na ci ngëneeli julli boo dee julli suba mbaa tisbaar nga jàng ci saar yu guddi yi saar yu guddi yi moom la ñuy wax way guddi mu fassal ci tàmbalee benn ci xujuraat jëm si ci xabasa mooy yu guddi yi loolu nag mooy boo dee julli yow dong mbaa ñu nga àndul ñëpp amuñu ngànt te taamu julli gu yàgg kon nga nga jàng ci saa yu guddi yooyu waaye bu fekkee ñu nga jiite xamoo leen am na ñu am ngànt boo demee tey boo jàng rek ci saar yu gàtt yi. boo dee julli nag takkusaan ba timis dañoo taamu nga jàng ci saar yu gàtt yi yi gàtt yi dañ koy tàmbale ci sóoratu Duha jëm si ci sóoratu Naas yi diggante boobu dañ jàpp ne saar yu gàtt lañu booy julli gee nag ñu sopp nga jàng ci saar yu digg doomu yi digg doomu lañ tàmbalee xabasa ba ci sóoratu Duha diggante boobu moo digg doomu daa bëgg a wax ne taamu nañu saar ba ngay jàng ci ràkk bu ñaareel gën a gàtt saar ba ngay jàng ci ràkk bu jëkk te it ci niñ ko tegalee ci kaamil bi noonu lañ bëgg mu tegaloo ko maanaam saar ba ngay jàng ci ràkk bu jëkk na jiitu ci niñ tegalee ci kaamil bi li ki taamuwuñu ràkk bu jëkk nga jàng ca suuratu naas yi ràkkam ñaareel nga jàng ca falaq yi ndax xam nga ne falaq yi mooy jiitu naas yi ci niñ tegalee ci kaamil bi maanaam taamu nañu taayu digg gën a gàtt taayu ja nga nar a sëlmale taayu digg moom da ngay yem ci taayu rek ci xabdu woo war a soolu woo doo ca boole julli ci yonante bi doo ca boole ñaan ci taayu digg ji nag moom day am julli ci yonante bi muy sunna ñu sopp nga ñaan ca door a sëlmal. bu dee ci yoonu Malik dañuy sopp boo xawee ko ci kaw jëm ci sujjóot nga njëkk a rëppeel say loxo door a sukk. say bëti woom soo di jóg nag jëm ci ràkk ba ca topp nga njëkk a yëkkati say bëti woom mujjee yëkkati say loxo boo dee julli julli farata bu dee ci yoonu Malik dañuy sib nga wax ca bismillahi rahmani rahim wala nga wax ca aoudu billahi min asheytaani rajim wala lu mel ne xasbunallahu wa ni amal wakil bu dee ci naafile nag moom sibu ñu ko jël sib nañu ngay julli bañ a takk suuf tax ngay sujjóot ci sa yére yi nga sol di ci salafu mbubb wala ngay sujjóot ci sa kaala wala nga lal leneen bañ a takk suuf tax nga di ca sujjóot dañoo taamoon boo dee julli sëb jë ak say loxo joojoonte jëmmi suuf ba taamu nañ sax boo dee lal lu mel ne basan ba sajaada ci foo xam ne am na suuf nga lalee ko lalin woo xam ne sëb jë ak say loxo fa nga koy teg moom suufus kese lay doon bu fekkoon ne nag jamono yi daa tàng mbaa mu sedd ba ëpp moo tax nga sujjóot ca kaala ga mbaa ca lafu mbubb wa mbaa ca sajaada ba mbaa loolee kon day loola kenn sibatu ko nga xool nag kawru ximaamatin lemlemu kaala bi mu wax mooy sa kaala gi nga kaala woo dafa lemu ci sëb jë nga xam ne boo sëgee di sujjóot lemu-lemu ba dana dox sa digganteeg suuf sa kooku nee nañu bu dee benn lemu-lemu wala ñaari lemu-lemu nga xam ne talut nekkut lu tal kon sibboong lay doon waaye bu talee ba ëpp moom day daal di yàq julli ga sib ñu ngay julli seex ci sa gimiñ loo xam ne nekkul lu luy ruy bu doon luy ruy moom dañ ne tàngal day sotti ko ak lekk waaye lu mel ne ab dërëm baaw xeer nag ngay julli seex ko te yàqalu la wax baat ya sib lay doon te bu la yàqalee wax baat ya sax daal di yàq julli gi di julli nag def ci sa lafu mbubb mbaa ci sa poos dara loo xam ne xëy na sam xel di ca dem ba tey sib nañ ko dañoo bëgg rek boo dee bëgg a julli lépp loo xam ne sam xel mën na jaarima rek nga tàggoog moom bala ngaa julli boo dee sujjóot ak boo dee rukoo dañ la faa digal rek sàbbaal bu dee sujjóot bi mën nga caa boole ñaan dara ko ba nga bañ caa ñaan waaye nag jàng alquran ca ba ngay sujjóot mbaa ba ngay rukkoo moom sib nañ ko di julli di xalaat ci mbiri àdduna sib nañ ko te itam na nga teewlu kese dañ lay bindal tuyaaba loo xam ne teewluwoo ko def la ca bindal dara te it nee nañu bu xalaatee pare bu mujj xamatoo dara dara dara ci julli ga moom da nga ko war a dagg di tàmbaliwaat ko ndax yàqu na waaye nag bu xalaatee bari bari moom li fekk yaa ngi xam li ngay julli rek dañuy jàpp ne julli gi wér na bu dee ci fiq kenn du la julliloo waat di julli di fay lu mel ni ab sikkimam mbaa ab jaaroom mbaa leneen sib nañ ko di julli di gestu moo xam ci ndeyjoor moo xam ci càmmooñ sib nañ ko ba nga tolloo jàng fatiha mbaa jàng saar wa sib nañu nga di fa ñaan dara dara tolloo ci rokoo sàbbal rek ngay def waaye sib nañ ku fa ñaan di julli di ràbbale say baaraam baa nga di ko foq ba tey sib nañ ko yàttu mooy jàpp ci salwet loolu sib nañ ko di julli di gëmm say bët bu fekkee du ngelaw la nar a fat baa bañ a xoll dalaa neex rek nga gëmm daañu ko sib ndax nee nañu dañuy bañ nga feeñal ragal yàlla gu nekkul ci yow